ah bu baax a baax. alhamdulilah. wala. Ah, bu baax a baax. bu baax a ah, lu ñuy lu ñuy lu ñuy soxla di ko paase lu tuuti tuuti. nga ñun eh, dañuy door mu daanu. tey ah, lii attaqué semaine bi ci topp. waaw c'est bien de <laughs> awa ah bàyyi tooñ awa ah jóge na marché directement indi ñu panier bi nga xamante ne euh, chaque jour saa su ne am na lu ci nekk des fois nag mu varié des fois ñu jëm ci ay euh, soble des fois ñu jëm ci yàpp des fois ñu jëm ci ginaar mais tey moom dafa rafet maanaam nag may fàttali salade de fruits joli joli tu plais à mon père tu euh, plais à ma mère maama ak personnalité rek laa àndal tey duy sama pañe ba mu fees. Mhm. def samay orange def sama mandarine. def sama pamplemousse. Mhm. def sama ananas. ah nga xam ne moom moom mooy sama xarit. kii ba mën nañ ko jël laaj seetoo seet xam nga mën naa ne dafa am ay cadeau yoo xam ni. Mhm. Euh, du caaginu rek nga dem ci boutique bi jënd loo xam ni dañ koy sol yooyu. cadeau mën na nekk fruit. effectivement donc pañe à cadeau la boo xam ne dañ koy defar. ba mu fees del foog naa ko ko enveloppé moom tey koy defar ni ba mu baax enveloppé ko nii tey cadeau euh, waa Good Morning ñëpp la nga koy mayaale ñoo koy boole tey di ko jox xaritu xaritu émission bi ñi nga xam ne ñooy suñuy xarit ñëpp rek ñoom lañ koy jox tey léegi dañ lay bàyyi nga yebbi ay ca pamplemousse moom mooy pamplemousse bi nga xam ni draineur hépatique la donc baax na ci moom mandarine la mhm. hépatite virale yi ak rein yi ça c'est parce que dafa am lu sew tamit mhm. ñu tegaat fi orange. bi orange bi nga xamante ne. mooy suñu orange waaw mooy orange bi koy bayee Casamance. Mmh. Gambie. waaw lii moom ak euh, ñaay bi. ananas la. ak ananas bi waaw ndax euh, maa ngi doon wër euh, fruit de la passion waaye dafa mel ni du période am. voilà fruit de la passion nag li ñuy wax passion. waaw mooy. nga tey nii. vraiment ay couple yu passionné. donc kooku boo ko ci doolee tamit. neexu la nii ah, waaw je pense que c'est très joli léegi nag xam naa ne rafet na waaye faw ñu jublu parce que lii moom nar ñu ko bàyyi nii mooy xool taxaw ci télé bi faw ñu dindi ko déguster ba pare xam nag yan vitamine moo ci nekk euh, bu ko defee yaram yi mën a mundu mundu xëy quoi waaw xaar ma raxasal la mandarine raxasal ma yëpp rek ma commencé alors euh, léegi ci ci mandarine beeg pamplemousse bi la ñuy tàmbali ba bu ñu fàtte dugal jinjeer bi jinjeer moom lu mu ah, bokk rek pour neer yi pour muscle yi pour euh, réveil musculaire comme ni ñu koy euh, bi pour sportif yi la tey. Mhm. alors le réveil musculaire ak endurance dafa am importance. d'accord alors ndax euh, boo ko seet loo ci làmb ji Bécaye xarañ na lool ci reportage mais war nay digal mbër yi lii nga xam ni mooy vitamine hyperprotéine. au passage on le salue Bécaye. ci juillet yooyu alors donc kii moom mooy orange du pays d' ailleurs euh, euh, ñun dañ bi ñu daan fubal. Euh, centenaire Gibraltar on avait un bon tournoi ce week alors orange yi la ñoom Espoir ñoom Patrice Cardo doon daan jël jël pour rek xarañ xarañ loo suñu deuxième mi-temps. ah yooyu ku ñu jàpp rek dóor la. Mhm. donc Aziz Samb sax ci la bokkoon tourbillon. Mhm. alors donc on avait une très bonne équipe. tourbillon ak jëmbët de Gibraltar centenaire. ma dolli la wala. waaw xoolal ay ñu dugal lii léegi li may def rek mooy awa xam naa yow yaa ñuy najal euh, orange xam naa. dañuy dolli. Eh, il faut ñu dolli. Mhm. parce que tey jii foog naa ni jus bi ñëpp ciy naan parce que persek keroog awa persek nee dañ koy may ci jus yi. Hmm. parce que moom it xarañ la bëgg. waaw moom kooku sama chéri la maa koy yóbbu. Ah. waaw. ah. Hmm. léegi dañ koy nar li ngay def mooy. Ah, waaw da ñuy naral. Ah. ma jox la lii aussi soo naree ba pare dugal foofu. alors kii moom mooy. ananas ananas bi foog naa léegi. ñu mbokk yi nga xam ne ñu ñuy seetaan war nañu xam nuñ koy doge donc boo dogee ñaari parti yi ngay def mooy. dindi xollit bi. waaye nag nañuy jël suñu temps nag dindi li nga xamante ne mooy bëtu ananas bi. waaw parce que boo ko lekkee boo déggee nit ne la sama làmmiñ dafay xasan. na jàpp ne lii la jot a lekk. waaw moo tax làmmiñ bi di xasan. keroog waxoon nañ ko ci kiwi bi. Hmm. am na ay euh, xolit yoo xam ni warul nekk en contact ak lami wala gorge ndax dina dem ba jox la ay irritation donc euh, il faut faire attention donc euh, kii moom dañuy rappeler temps yi may dem fële ci Côte d'Ivoire di ànd ak ablay Gueye ñuy dem billetterie di wuti ay ananas. ananas moom foofu dañ koy daggate noonu. directement vraiment dañ koy daggate noonu. prix important la foofu ci Côte d'Ivoire alors donc ñi ñuy seetaan la Côte d'Ivoire vous pouvez reprendre ce jus qui vous fera de bien. jus bi nag waa Côte d'Ivoire ak Gambie Maleek Mauritanie ñëpp rek ñiy seetaan ñëpp rek voilà. nañu defal jus bi tax ne incha allah lënd bi dina normal. normal joxaat ma euh, ananas boobu. bi. ah Bakar rek lay tooñ. ah bon tey dafa jëm musique française. waaw qui adoucit les mœurs ah. ah ça c'est Ismaël Lo qui chante l'amour donc am na droit yi mais am na devoir yi aussi. moom am naa yaakaar ne comme dafa bari vitamine C góob ma ne kenn dina ko mën naan ngoon. déedéet lu am solo nga wax. jus bi comme réveil musculaire la wax. te réveil musculaire moom mooy li nga xam ni neer yi ak muscle yi dañuy yeewu. Mhm. kon bokk kenn du ko naan guddi parce que guddi dañu war a nelaw. alors donc. Euh, li nga xam ni. fi mu toll nii moom gis naa ne awa mu ngi euh, nal mi nga xamante ne mooy fruit yi. mais fruits yi nag bëri nañu ndox parce que en passant ci ananas bi pamplemousse moom ñëpp xam nañ ne ndox rek la am waaw euh, orange Sénégal bi aussi tamit c'est vraiment juteux donc nañu ci profiter te wax dëgg fa yàlla xam naa ne cheru orange Sénégal yi boo demee ci taabal yi léegi sax ñu ngi koy am. waaw cheru yàlla am la heure mhm. de moom la mhm. aussi. d'accord léegi ananas boobu Pape Amadou nan lañ koy def dañ koy mixé moom wala nan dañ koy daggatee bàyyi ko ci. dañ koy dugal ci. Euh, mixeur mix kii bi euh, centrifuge bi. Mm-hmm.